que partout en Afrique doit souffler un vent nouveau de changement. plus de nous-mêmes. vous cette jeunesse, je veux que vous compreniez que la politique est un exercice très fort. La politique nous ni au plus profond de nous-mêmes. La politique est un général politique Moi, un exercice soi-même mais en s'oubliant profit de l'intérêt général de ce que nous partageons politique

ñoom seen bopp xam nañ ko moo tax foo leen fekk dañuy mer seetlu ngeen loolu foo leen fekk dañuy mer su ko ngoon jot ku ca koo ci dégg muy wax sax Ousmane Sonko Ousmane Sonko seen campagne yëpp Ousmane Sonko danaa tiit danaa tiit waaye bu soobee yàlla ak seen taxawaay yéen ñii nga xam ne yee nañu aar démb barki démb ci ndimbalu yàlla mën nañu xëy di mbéb mbéb yi ba ngoon am sonko andil sonko day yokk sonko rek waaye du ko wàññi. yow rek la ñuy topp ñoom. te lii ngeen def tey lii na ko ndax nun rek te du tey de yàgg na nun rek ñooy toog di campagne ba heure yi joxoon nit ñi xaalis dakkal leen ay t-shirt te boo leen nee xaar leen ma ba trois heures du xaar la. ko andi nag. wallaahi. di campagne ba heure yi joxoon nit ñi xaalis dakkal leen ay t te boo leen nee xaar leen ma ba trois heures du xaar la. li ko andi nag li andi lool nun waruñu koo fàtte. parce que suñu ak yeen c'est contrat bobu lan moko ko lal mooy li ngeen gis ci ñun té yaakar ko té gëm ni mo fi né ci bëgg réew mi ci njub ci jittal intérêt réew mi loolu motax contrat bobu am suñu digënté motax makoy wax sama bop di wax wa parti bi yépp na ñi diriger gis nga askan du la top ci yama neex dalay topp ci ngëm-ngëm loolu la ngëm ngoom moom nag ñun dañu war a am responsabilité bu rëy fexe ba du lu ko nar a yàq du jóge ci ñun ñii di dirigeant yi loolu mooy contrat bi moo tax campagne bi am solo parce que dafa di campagne boo xam ne dafa ñëw gannaaw bu ñu présenter suñu référentiel moo tax ma def ko campagne référentiel bi waye li waran wax ci pôle bi wax nañ ko demb ci meetingu ties bi parce que Mbour caravane lañ ci wajalon waye demb ci guddi lañ ñu ne wa Mbour nee nañu dañoo namm meeting dañu bëgg ñu def ko meeting loolu tax ñu transformer ko meeting kon duma delu ci ci lañ wax demb ties ndax nee len ci référence 2050 bi Mbour à l'horizon 2050 dañu bëgg mu doon li ñuy wooye une métropole d'équilibre mooy mu doon lu ñu mën a mandargalee Ndakaaru tey ci capacité ci volume ci développement loolu yëpp dañoo bëgg mu daje fii ci Mbour ndax Mbour am na potentiel bi am na capacité bi waaye comme loolu defal nañ ko démb fële tey dama bëgg waxtaan ak yéen ci ñaari poñ ñaari poñ benn bi di napp bi beneen bi di mbëkk bi ndax waa boor bii dafa mel ni xamoon nañu li ma bëgg a wax ñu anticiper si li ma bëgg wax ci napp gi nag mooy benn mbuur dëkku napp la waaye ñaareel bi mooy nit ñi dañoo bëgg a gëmloo nit ñi ni juróom benn weer yi nun liggéeyuñu yàlla xam nañu ñu liggéey juróom weer yi benn weer yi buñ ko liggéeyuloon Sénégal nërmelu na ndax ñoom dañoo yàq yàq yàq yàq ba fu yàq yem xam ngeen bi ñu ñëwee xayma nañu fu mbir yi toll bi ñu paree wax nañu leen ko loo tax ngeen war moo tax majorité bi ñu war a am assemblée dafa doon door a doon majorité boo xam ne ma li ma gëm ci ñoom comme cent pour cent baaxul ci démocratie li ma gëm mooy ñoom bu ñu waree am ay député ay benn benn lay doon ay toq-toq bu boobaa nag la ñuy yor les pleins pouvoirs pour mun a doxal li ñuy diglanteeg yéen bu boobaa ngeen di xam ñoom ni ñu yàqee réew mi fi mu toll. xam nga wax naa ko keroog may joxe les chiffres nee naa ñi def lii dinañ leen woo ñu ñëw layoog réew mi parce que am na loo xam ne nag boo ko defee da nga war réew mi. danga nga koo wor waaye dama leen bëgg a jukki lenn rek ci li ñu def ci napp gi ngeen xam ndax ci juróom benn weer yi liggéey nañu wala liggéey ñu ëllëg bu ma demee feneen dinaa ko def ci mbay mi beneen ma def ko ci njàng mi beneen ma def ko ci leen ak leneen ba ngeen tegal seen bopp seen bët te bu boobaa nag olof dafa ne bu cin bu cin naree neex bu baxee xeeñ

ñu mën a bàyyi géej gi wala jën yi mën a reproduire ba egg taay bi ñu ko soxlaa semaine passée rek def nañ fi 30 000 yoo xam ne émergé nañ ko fii diggante 6 mois yi distribué nañu mbokk suñu mbokk mool yi 6000 gilets de sauvetage yoo xam ne gratuitement lañ ko def kenn génnewu ci fukki dërëm bi ñu ñëwee fekk nañu.

defar un site moderne de transformation des produits halieutiques bu tànn bi donte bâtiment bi defaroon nañ ko waaye fa lañ ko tojoon bàyyi ñun ñoo ñëw commencé équiper pour nit ñi mën a liggéey ci juróom-benn weer yii li lépp ci gi lancé un programme de renforcement des capacités des pêcheurs des maraîchers et des transformatrices fii ci Mbour ak ci Petite Côte bi Jérôme juróom dit la construction d'un site de débarquement moderne partenariat avec JICA nous avons des def fii à Mbour fait nañu plan yi démarrer le bi un engagement de construire le siège du conseil local de pêche Nous avons war koo aussi réseau national

ba tax tey ku tëmb dem ci géej gi boo moytul booy ñëw li ngay andi du bëri wala lenn sax yenn saay sax nga ñëw doo andi dara président Bassirou Diomaye Faye bi ñu toogee def weer la Louis Michel nga xam ne mooy président commission européenne ñëw ndakaaru mu recevoir ko woo ma ne ma ñëwal ñu recevoir ko bi mu ñëwee daf ko ne accord de pêche yii mënuñu ko continuer ndax baaxul ci réew mi dañ koy renégocier loolu sama kanam la loolu moo tax ngeen gis tubaab yi gaawantu daa di def avertissement Sénégal ne ñun dañoo am problème ci suñuy qualité yi ñuy exporté Union européenne parce que jàpp nañ ni mun nañ ñoo xoj wala ñu xoqatal ñu ba ñu dellu gannaaw waaye ma wax leen fii accord boobu novembre lay jeex ñu ngi ci mois de novembre du ma ne accord dootul am de waaye buy am à 80 intérêt Sénégal lay doon leneen lu ci jawaa ji jël na ko yóbbu loolu bokk na ci ci juróom benn weer yii accéléré nañu processus immatriculation gaal yi nga xam ne mooy pêche artisanal bi ci juróom benn weer yi waaye it euh, moo wax leen ni ci juróom benn weer yi Sénégal lu musuta def mooy publier nañu la liste de tous les navires les 34 navires étrangers et les 9 navires les 34 navires sénégalais et les 9 navires sénégalais étrangers nous nga xam autorisation pêcher dans les eaux sénégalaises keneen ku dul moom boo duggee ñu jàpp la arraisonné la loolu musuñu ko def Sénégal kenn musul publier la liste des navires kon kon buñ leen nee ci di juróom benn weer yi liggéeyuñu te jugeen ci juróom benn weer yi ñu def loo xam ne ñoom toog nañu ay décennies defuñu ko ci biir réew mi kon jàpp naa ni bu ñu waxee mool yi bu ñu waxee sénégalais yi parce que napp gi du mbirum mool yi kese ndax ñun sénégalais en tout cas ñun ñi xaw a nekk léegi cinquante bi ñuy nekk gone man Sébikotane gila laa ekol école sa bay bu ñëwaan weekend dañuy jël auto bi dem Kayar peese fa ciof ba doyel ñëw ci kër gi waye tay kan mo fi lek ciof ciof de tuba bi lañ koy jox fi ci hôtel yi waye jafé nañu kon suñu wax napp waxuñu rek nu jëm nga bolé ci ni ben facteur bu am solo la ci devise parce que dañuy exporter lu bari waye mu waroon doon un un moteur puissant d'industrialisation gis nga Saint-Louis ba Cap lepp ay usine de pêche waroon doon fi jën waru fe jóge brut ñukoy koy ci réew mi dañ ko wara transformer fi def ko fi en pot do koy génne ci réew mi te lool mo nek ci vision 2050 bu boba ngay créer de la valeur ajoutée Ni moy programme bi ñi bëgg opposé wu ñun ci lii lañ leen wooye débat am na ku ma fi waxtaanee ñëwal ñu débat xam ngeen xam ngeen biñ ko nee ñëwal ñu débat dafa dem làqatu ñetti fan ñeenti fan ba ñu ne CNRA nee na d'accordul ci débat bi mu dëgg a génn ne d'accord naa débat ak Sonko loolu mooy mbirum buqat dëgg waaye moom xam na man xam naa yàlla xam na te nee na rapport mosu koo épinglé ma wax leen ni ñaari rapport nu mu tuuti tuuti benn bu benn bu inspection général d'État ak beneen boo xam ne dossier 94 milliards yi ngeen doon dégg ñaari rapport yooyu épinglé na ko wax lam ca def moom xam na te dinañ ko publier ba Sénégalais gis ko seen bët dañuy wax ni sant bu dul raw jarul yàqi nelaw waye bu ngeen gisee mané ko ñewal ñu débat parce que ñun dañoo bëgg politique Sénégal ñu tek ko ci qualité xey di wax waxu ñàkk fayda ñi wax fele dakaru top ci deru nit ñi di wax suba ngol lool du politique yeen su ngeen ñu topé xam ngeen lutax parce que ñoo leen njëkk taxaw ne leen pétrole bi ne leen gaz bi ne leen lempo gi ne leen mbay mi wax ak yeneen ak yeneen loolu moo tax ngeen topp ñu moo tax Sénégal yi dañu war a exigeant ku dem ba di waxati politique rek nañ ko ne kaay nga wax ñu yow ci mbay mi wala ci càmm gi wala ci pêche bi kaay nga wax ñu sa gis-gis lan la waaye am na ci ñoo xam ne bés ba ne ñi nga wax te baccalauréat amuñu ko baccalauréat nañu publier seen CV baccalauréat amuñu ko kon bu ngeen gisee ñuy wax loolu ñun dañu bëgg politique bi ñu sellal ko politique mënul ñàkk de temps en ñu xaw cee def tuuti xorom sax waaye saaga ak xasteeg ñoom seen bokkul ci politik ku amul xam-xam rek mooy xëy dem jël ay butéelu kenn xamul naan ba xamul fu mu ne ñëw taxaw di xasteeg di saaga waaye ku jàng ba xam doo defee noonu politik moo tax ñaareelu poñ bi ma bëgg a waxtaan ak yéen nag ñaareelu poñ bi ma bëgg a waxtaan ak yéen loolu man la ak yéen mooy jeunesse bi ak ñun ñii dama koy tënk ci benn poñ Moy émigration clandestine mag leni leen bu ngeen nee ma len téré mbëkki gis ngeen yéen yéen vous êtes une jeunesse consciente une jeunesse responsable moo tax ñu ngi leen di féliciter ndax ba ñuy opposition coowul mbëkk bi am fi man maa dem doxantu ji Wakaam fekk fa ci plage bi ay nit toog mu waxtaan ak ñoom ne leen gis ngeen réew waa réew mu ñoo koy defar suñu combat fii la ci Sénégal yalla bu ko sobon ñen ñi ci ñun japonais lañuy ñuy judd nek ñuy fa lañuy ñuy ñi nek vietnamien ñi nek américain ñi nek français waye yalla moo ñu tànnal fii dafa am lo xamne ken yalla du ci taggu ken moy fan ngay judo, ñan ñoy doon say mbokk ñan ñoy doon say parents lolu ken mënu ko tanal bopam kon bu la yalla tànnalee lolu dang ci wara am fierté pour man amul lu gën Sénégal réew noo munti tollu Sénégal gi moma la gënal parce que yalla moma ko tanal yalla moma ko tanal motax jafé jafé am ci réew nga jël gal daw loolu bokul ci njambar njambar moy jafé jafé am na ci réew mi damay taxaw xex ko ba jëlé fi jafé jafé motax ñun on n'a pas le droit d'échouer ñun Nous n'avons pas le droit d'échouer parce que l'espoir du sénégalais est am nous. ñun na yéen nous. ñi sénégalais dootul gëm sénégalais abadan Je vous garantis garantir Nous du ñu échoué réussir ba ngeen ne la jeunesse consciente ne xalaatatu leen di mbëggi ndax Sénégal lépp ngi fi suuf saa ngi nii ne yambalang suba ba léegi ñu ngi daw ci àll bi suuf kese la suuf su kenn bayul ñu am 700 kilomètres de côte war a mën a napp war a mën a sàmm àll baa ngi ne nii ñu am ay ressources naturel te dafa am lu ñu diglante woon ak yéen mooy ressources naturelles yooyu tey lañ ko. waaye ñun bu ñu yegg seet nañu fexe ba delloosi ko ci réew mi te ñu ngi ci te dina dellu si de luy pétrole di gaz di zircon di phosphate di leen ak leneen bu ñu paree liggéey bi ñuy liggéey bu dee Sénégal ñett la ci amoon dina ci am juróom-ñeent wala fukk bu soobee yàlla. kon Sénégal bu amee loolu lépp dellu si nag nee naa leen ci seen jàmbaar. ñu ne Sénégal amna dirigeant yu mu wara am moy des ñu xam-xam amna ñu gis-gis bëgg nañu réew mi seen loxo set wa lan la nit di Nous ci naan ma ngi genn nu fi jara daw bay daanu fi jara parce que ngeen engagement ak ñun à toute la jeunesse nak la bëgg on ne vous laissera pas prendre les pirogues pour sortir de ce pays duñ ko

gis ngeen bi ñu mujjee am noonu ñu naan 34 personnes la ñu fekk ci gaal gi su ma leen waroon image yi bi affaire bi ñëwee dama ne président dama woo président ne ko président defe naa lii dañ ko war a publier ba ndaw ñëpp gis ko parce que lii dara jaru ko ci àdduna mu ne ma mukk les images sont trop sensibles ma ne ko dañuy flouter image yi rek ñu wane gaal gi flouter image yi ba nit ñi gis corps yi ni ñu entassé. nga avons dans quelles conditions de souffrance ils ont dû perdre la vie lek, amato amatooloo n'est que seul ci gaal goo xam ne kenn xamul fu jëm lan moko fi les autorités politiques sont des responsables loolu war nous ma bug bug bug bug. bëgg xam ngeen ni suñu ñun ak relation de vérité la nu ma bug bëgg bëgg vous ngeen ko bëggoon def damay wagn sen loxo ne duma len baye ngeen def ko parce que vous avez 20 ans vous né 2050, vous avez 20 ans man xawma ndax 2050 mille Vous fi fekk de xawma wayé nous am nañ ni li ëpp ci 20 fi kon c'est pour vous c'est pas pour nous yéen wara tok accompagner ñu

un politicien responsable non ngay doxale waye yow yak yakamti lu dul la misère du peuple même nit yu dé da nga koy politiquer gis ngeen li ñu doon essayé def Bakel motax wa Bakel délet leen ñun soxlawuñu leen fi dé fogg ni mën nañu wëlbeuti wa ñom ña démon Bakel naan dañuy dem Bakel ba bëgg dem forcé passage ko lan la ñëw boon ñetti butéelu ndox juróomi paquet de biscuit est-ce que ñoom mën nañu def ñu deful ñun état mënul nekk état bi génnee 40 milliards ne 8 milliards yi pour secours la la jeunesse pour reconstruction la est que ñoom mën nañu génne loolu kon nooy politique politique politique dañ ci war a ànd ak dignité mu sarse na ànd ceeg humilité ànd ceeg pudeur da doo politiquer lu ne parce que ma jaaxal affaire ni mu gaawee pourquoi mënul gaaw si sa téléphone. tey jii démb rek dégg ngeen benn gaal boo xam ne marine nationale intercepté na ko ah xaw ma ñaata kilomètre de côte nañu police génne nañu gendarmerie waaye que du ñu ko nangu.

maa ngi wax seen benn ministre ne ko yéen ñun bu ñu defee li ñu war a def fii ci réew mi yéenay ñëw ubbi fii ay bureau di saraxu pour ñu abal leen ay ndaw yi leen dem jàppale tuuti parce que vous êtes des populations vieillissantes sans main-d'œuvre ñun nag jeune jeunesse bi moom mooy suñu principale richesse moom la ñu war a transformer en dividende démographique ci loolu la nekk.

premier mi-temps même 7-0 deuxième mi-temps ngay remontada mars 2024 premier mi-temps deuxième mi-temps bi là, 17 novembre bu ngeen le président Diomaye président de la république Nous avons assemblée nationale ndax le gouvernement surtout tu nous avons une opposition irresponsable comme bii nga xam ne seen tappale nañ sax ba ne bëgg le gouvernement 1960 ba léegi mosu ñoo le gouvernement Nous ñu ne dañuy le gouvernement Donc, kon lenn moo mën a deuxième mi-temps bi sécuriser le score Moi, le 17 novembre ñu jox une victoire éclatante et écrasante au président Bassirou Diomaye Faye

démb ba léegi région de Thiès nous ndox la ñuy wax ni le projet du grand transfert d'eau bi yéen que nga xam ne nañ plus de 800 milliards C'est l'un des plus importants projets de lancé nañ ko ba choisir nañu entreprise de ko war def ba projet Bobo, ce mu régler c'est le triangle Touba mour Dakar

Moins peuple parce que vous avez les dirigeants que vous attaquiez il faut soutenir ces dirigeants parce que si vous les soutenez vous soutenez vous-même Nous, sommes les di de di leen sant